أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bu ñu santee sunu borom subhanahu wa taala ñu ngi julli ci sa ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonente mu ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru waxtaane saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñooñee nga xam ni borom bi subhanahu wa taala daf leen a tànnoon ci biir tànneef yi li soxbati nabiyi fa kaanu afdala hadihi al umma wa afdala al umam baada anbiyaihim ñooñu nga xam ni borom bi subhanahu wa taala daf leen a tànnoon ci biir xeet wi ñu gën ci xeet wi ginnaaw seen yonent gën ci xeet yépp ginnaaw bu yonent yi jàllee alayhim salaatu wasalaam mbokk yi xam ngeen ni taarix mu histoire fàttali ko ko di ko jàng dafa am solo la tax mu am solo mooy borom bi subhanahu wa taala dafa bindee doomu aadama noo xam ni yi paase daf koy faral di yitteel lool boo seetloo borom bi subhanahu wa taala ca suuratu Taaha ginnaaw boo jógee ci suuratu Yuusuf borom bi subhanahu wa taala ne yéen sallam laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab ñu baax ñi jiitu woon suñu borom ni toog di waxtaanee seen dundkat ak waaru mi ngi ci ak fàttaliku ñeel ñi am xel suñu borom ci suuratu Taaha mu ne yonent bi kadalika naqussu alayka min anbaai ma qad sabaq wa qad aataynaaka min ladunna dikra xam ngeen suuratu Taaha borom bi dafa nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jullit ñi as lépp ci dundu yonent yi bi mu ci noppee mu ni kadalika niki nii nag naqussu alayka nan lay nettali min ambaai ma qad sabaq ci xabaaru gaa yi nga xam ne ñoo jiitu woon wa qad aataynaaka min ladunna dikra te it andil nañ la fi ñun ak waaroo fàttaliku loolu mooy alquran suñu borom di joxoñ ñu baax ña naan ulaika alladina hadahum allah ñooñu la yàlla gindi kon fa bi hudaahu muqtadi soo bëggee gindeeku da ngay jaar fañ jaaroon ni yonent bi wattabi na nga topp millata abik ah millata abaik toppal sa yoonu baay yi muy Ibrahima ak Isxaaq ak ay njabootam ah ca suratul xajji borom bi di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko toppal yoonu sa baay Ibrahim huwa sammaakumul muslimina min qabl yii xeeti joxoñ mbokk yi ci alquran ku ko seetlu dëgg di nga xam ni kon. histoire yu ñu jiitu woon kat xam ko lu am solo la ndax léeg-léeg kat mën naa fuddloo xol léeg-léeg it mën naa wanaat nit ki yeesu fa nga xamante ni fa la war a jaar te loola mi ngi amee nag ci farlu nit ki waaye ak ndimbalu suñu borom kon dellu si waat nañ weneen yoon ci góor yooyu nga xam ni ak jigéen ñooñu nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen yar amaana tey xëy na waroon nañoo jël kenn ci jigéen ñi nun noo jaawat la jàpp ni ci góor ñi la ndax biñ jóge ak ba ca toppoon defe naa ci góor ñi la ñu nekkoon waaye ñu tànnaat keneen sësali ko ci abu darda mi paase jubluwaay mooy ñoom ñaar dañoo nuroo aw doxin tey ñu ngi ànd ak alsaxaabiyu aljalil alladi qaala fihi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man araada an yanzura ila tawaaduci isa falyandur ila abi dar li tax ñu tànn abu dar mooy abu dar ak abu darda ñoom ñaar dañoo nuroo doxin te xam ngeen ni ñaar ñooñu nuree doxin dendale seen dund dana sabab mott leen te am ñoom ñaar mën naa ni ñoo bokkoon peer yi daal ñoom ñaar mën naa ni ñoo bokkoon classe ñoom ñaar mën naa ni ñoo nuroo doxin ñoom ñaar mën naa ni ñoo nuroo dundin abu dar mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man sarrahu képp ku bëgg kontaan ci an yanzura mu gis ila tawaadui isa ni isa bnu maryam dëddoo woon àddina te toroxlu nee na boo xoolee abu dar rek gis nga waaja allahu akbar xoolal isa ak ni mu màggee nga xam ni yàlla da koo sàkk ci yaay ci amut baay loolu di kaawteef gu rëy mu nekkoon ku dëddu àddina ndax az-zuhd moom ñi cay bind ñépp bu ñu laalee ci ñu jiitu rek laal nañ isa isa alayhi salaam ku bëgg xam ne mu dëddoo woon àddina da ngay xool abu dar al-ghifari radiyallahu anhu wa arda dinaay faral di baamtu lu bari mooy gis nga nit ki kem na meloon ci bi muy nekk ceddo bu amul sens da koy topp foofu nag kenn ku ne ci ñun bu ko jëlee mën na ci corriger aslëf ci dundam gis nga nit ki mbaax gi mu amoon ci balaa sunna bu góorgóorloo tuuti da koy topp gis nga nit ki caay-caay gi ak mbon gi mu amoon balaa sunna bu amul sens da koy topp su ma nee sunna nag mooy lislaam ndax lislaam juwér moom sunnaa tax ñuy wax yénti yàlla bi ne na xiyaarukum fil jaahiliya ke leen gënoon ba ngeen nekkee ca ceddo ga xiyaarukum fil islam bu ngeen duggee ci lislaam mu gën la waaye nag ida faquhu mooy bu ngeen sàkkoo xam-xam maanaam dafa bëgg a wax ni ki nga xamante ni moo la gënoon ci ay qualité balaay lislaam bu lislaam ñëwee daf lay gënaat li ko waral mooy bu jàng amee rek day jubbanti la baaxoon baaxul woon mottali li baaxoon kon abu dar fulla jeeg fayda jeeg ngëm yàlla geeg dëggu geeg dëgër gi noonu la meloon balaa lislaam nga xam ngeen ni borom xam-xam yi dinañ faral di def nag léeg-léeg ñu tudd as lëpp ci nit ki na meloon balaa lislaam waaye doonte duñ ca sori nag ndax loola moom xam ngeen ni al islaamu yajubbu ma qabla wa tawbatu tajubbu ma qablaha lislaam moom bu yegsee day màbb la ko jiitu woon lépp falaxe ko sànni donte lu bon la waaye tuub bu yegsee day màbb la ko jiitu woon ci caay-caay lépp falaxe ko sànni loolu nag li tax mooy nit ki dafa war a gëm ni gis nga nu mu mën a mel ci jubadi bu ko yàlla baaxee mu xam lislaam rek bu nangoo jàng diineem rek na yëg ni mi ngi faxas la passé woon am na ñoo xam ne tey buñ la waxoon seen histoire nga xam fan jógeeg nan mel jàpp naa ne da ngay gëm ni ñi waruñoo mën a baax ba faaw Abu Dar maanaam du ma la wax daf doon def agressé agresseur la woon waaye bal agresseur yi nekkoon ci tund woowe yépp dañ koo xamoon ndax chef la ci woon abu dar li wolof yi naan ponkalum maamu agresseur moom la woon radiyallahu anhu te it nag man li muy def lool nag moom bu dajeeg yow du la dóor du la saaga du la xas loxoom lay tàllal jox ma li nga yore boo ko joxee mu dem yoonam bàyyi la nga dem joxee ko ko nag bu soob yàlla tey nga dem buntu àllaaxira moom moom ñëpp ñi ko xam ñëpp noonu lañ ko xamee woon moom moom du la menacé du la tooñ du la def dara eh nga ne naam muy li nga yor laa soxla boo ko joxee moom jàmm day am da nga koy jox rek mu dem nga dem. waaye nag bis boo dëkk nakk nakkal nag ponkal la woon moo xam ne suñu borom da koo bindee woon jëmm ju tal te dëgër am yaram njool ca kaw nag zaaru abbas yooyu ak ibni abbas yooyu ak omar yooyu noonu lañ bindee woon ñoom ñëpp tey kon noo ngi fayetewaat dund kenn koo xam ni lam tastati dunya an tanaala min qalbihi shay'a allahu akbar addina jéem naa xëccoog moom foqar ñi xolam ba tàyyi waaye addina mënul am lu mu foqar ñi ci xolam gis nga ñi mbokk yi jàng seen dund bokk na ci solo si mooy maanaam modèle boo soxla rek mi ngi seen biir abu dar walladi sabaqahu abu darda ci jamono bi ñu toll nga xam ne nit ñi daanaka xil yi ni daw di topp addina moom amatul contrôle maanaam ay frein moom nit ñi amatuñ ko léegi maanaam nit ñi fi mu ne ci songu addina ak wutum koom amuñ ay frein te loolu ñëpp a ci am illa man rahima rabbak waaye abu dar alzahid alwaria ah alfaqihu alqanitu alaabid huwa abu darin radi allahu anhu wa arda abu dar ahadu alsabiqin alawalin min nujabaai ashabi muhammad ci ñi njëkk a tuub dugg ci lislaam ca la bopp la koy firndeel mooy am na ci borom xam-xam yi histoire yi ku mel ne yoomu zahabi ñoom ñu ne kaana xaamisa xamsatin fi l islam bi lislaam amee yonent bi am xadija am ali am am am ba ba mat ñeent abu dar moo ñëw juróomeel leen jàpp naa ne bu ñuy lim l'islam li mu am ci aw nit tey nim nar a bare ñu ne kii mooy cinquième personnalité bu tàbbi ci l'islam defe naa ne loolu rek bu fa nit ki yemoon ci diplôme bu mu takk loolu lu rëy la lu da ngay wan ni li wolof yi naan ba yëpp yay métti ba yëpp yay métti la yegg si woon moom Abu Dar nee na bi mu ñëwee dugg ci l'islam ginnaaw bi ci la delluwaat dëkkam ba yonent bi gàddaay dem Madina mu doog ko fay fekk radiyallahu anhu wa arda kaana yufti fi xilaafati abi bakrin wa umar wa asman loolu tamit ci ngëneel yi la bokk xam ngeen ni abubakar ak omar ak asman ba ñuy dund jàpp naa ni com como daawul daawul fatwa moom maanaam comme li xew tey nga xam ne téeméeri junniy rajo ak juróom-ñaar benn waay bu mën a xàmmee faal ak faayil ak mafawlu bi rek léegi nga daal di nekk mufti lu ñu la laaj ci diine xam ko dama dem Casamance di fa def benn séminaire ci mbokk yi ma daje fa ak ñu jóge Gàmbi ay ndongay xam-xam comme ñun ñuy waxtaan ba yegg ci waa ji mu ne ma yéen li am Sénégal lii loolu bu dëkk bu dem Gàmbi dañ lay dóor ba nga bëgg a dee mu ne ñuy woola rajo bi nga dem ngay taxaw di fatwa yi lu ñu wax rek nga daal di xam lépp mu ni bis boo ko defee te jaaroo fi nga war a jaar ba am ndigal mu ni boo yeewu rek ñu dugal la ci kaso bi ma ni subhanallah ndekete Gàmbi il bii il xam nga xoolal ne Gàmbi ak Sénégal il bii rek xoolal loolu lim mën a am ñun sax mënuñu ko am léeg-léeg da ngay déglu rajo da ngay dégg benn waay di wax jaaxum yoo xam ni subhaana rabbina al aala man gën ñemek yàlla nit ki mën a am di wax loo xam ni yow daanaka ma anzala allahu biha min sultaan léeg-léeg yow déglu ko sax donte xam nga ni ay ay caaxaan la ñuy wax faw nga déglu ko parce que li tax nga di ko déglu mooy da ngay jommi ci yàlla subhaanahu wa taala gis ngeen Abu Dar nag keroog bi Omar di dudd Ousmane ak Aboubacar ci bari xam-xam gi yeggoon na ci bokkoon ci ñu doon def fatwa ñu leen di laaj ñuy ubbee ci wàllu diine wa kaana rasan fi zuhdi walsidqi walilmi walamali qawalan bilxaqi la taaxuduhu fi llahi lawmatu laim ala xidatin fii abu dar bopp la woon ci dëddu addina bopp la woon ci dëggu bopp la woon ci jëfe li muy jàng te loolu moo ñu jafe ñun loolu moo ñu jafe ay fukki at ci ginnaaw rek mën ngaa dajeeg waa ji moom li mu mokkal ci hadis sax bëriwul waaye subhanallah sunna su nekk di nga gis ma di ko jëfe ndax dañ doon jàng di jëfe tey nag moom hadis boo tàmbali ñu àggalil la ko aaya boo wax ñu àggalil la ko waaye jëfe moom daanaka zéro virgule cinq dara lañ ci amut loolu nag moo waral li nu am bari na waaye barkeelul moo tax wolof yi ni bari la barkeel lee ko gën bopp la woon ci jëfe bopp la woon ci wax dëgg loolu moom dañ ko koo ràññee woon sax moom maanaam ay raay raayal ak neex neexal ak rëdd rëddal du ko ci fekk te it nag ba ñu ku mer te dinaay faral di wax mbokk yi ni gis nga yii melokaana ngi nii yoo xam ne bu la ko suñ borom baaxee am na jikko bu soof di nga ci mucc muy naafeq gis nga ñeme dëgg te tiitoo faalewoo kenn ci maanaam ku mer ak ku kontaan ngay boole yemale melokaan wi wër leen ko ngeen xool ko ci nit ñu simple ñi ñu dund ku ko yàlla baaxee rek seetlu en général naafeq du nekk ci moom déedéet nifaaq day dem ci moom parce que dafa dàqonteeg nifaaq Abu Dar moom wax la lim lay wax léegi daal dem toog bu fekkee kontaan nga ca baax na boo ca meret kontaan boobu moom baax na waaye nag ku amoon xadar la nag ku amoon xadar ala xida ala xida dafa amoon xadar trop xadar ji moom daa jéggi woon dayoo sax loolu nag mbindinu suñu borom la. gis koo xam day am xadar kii day naqari deret kii day gaaw a mer kii kii moom pour nga gis am meram daa jafe noonu la suñu borom moo ñe doomu aadama yi Abu Dar al-Ghifari wa qissatu islaami léegi nag fan la jaar ak ba dugg ci lislaam wax naa ni Abu Dar mi ngi dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Ghifaar boo déggee al-Ghifari yi mooy ma nga dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Ghifaar Ghifaar nag moom bu njëkkoon boo nee rifaar rek xel yi li ñuy njëkk a dem mooy ponkale agresseurs yi maanaam daal fa la agresseur agresseurs yu mag yi dëkkoon boo nee rifaar rek li ñuy njëkk a xalaat mooy agresseurs yu mag yëpp ñu nga dëkk foofu fa la Abu Dar dëkkoon moom bu yegsee li mu lay wax lu gàtt la jox ma li nga yore nga jox ko ko mu simple joxoo ko ko rek mu daal day song ànd ak nag balaa yonent bi yàlla di ko yónni am nag ndiir soo xam ne sunu borom mi ngi koy tàmbalee baaxe njub nag daanaka mu commencé sip métier moom ñuy tuddee métier am agréé fekk nekkuloon ci l'islam waaye danaan toog di wéet moom kese maanaam toog di wéet toog di wéet nag nuroon na koog mbokkam di Abu Darda innahu yabxatu an aalamin axar yujaddidu fihi al amaana wal amaana wal amaanata wal mahabbata wal ixaa wéetaay gi boo ko laajee lu tax mu ne day gëstu àddina boo xam ni su fa demee fa lay amee kóolute fa lay fekk wóor ak wóolu ak cofeel gu muy am ci mbokki julitam ak bennoo goo xam ni day gis diine jiikat maanaam dafa mel ni daal mbir yi nga xam ni mooy taar taari lislaam suñu borom da koo yenkee waloon mu ni moom la bëgg te gisagu ko di ko wër nag foofu nuroon na fa ak Abu Darda nuroon na fa ak yonente bi saa sallam ndax dana dem xaaru xiro noonu mbir mi sottiwut amul ab diir rek sunu borom daal di yabal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yi toll ca xifaar na xam ngeen ne yonente bi ak wooteem dafa siiw siiw gi li ko waral mooy gaa yi dañ ko doon jokkalante waaye yëg ngeen li xewa mi ngi mel ni bu ngeen jekkoon suba rek ngeen dégg ni benn waay ma nga Grand Dakar di woote ab yonent ni moom ab yonent la xam ngeen bu ngeen xëyee daanaka moom mooy mooy ordre du jour bi ñëpp moom la ñuy waxtaane nu boog yonente bi noonu la meloon dëkk boo dem waaye yéen yëg ngeen li xewa am na benn waay de boo xamante ni moom nee naa yeeyaay gis ngeen waxin woowu xam nga waxin woowu moom ku koy wax waxin kuy saboote la waale la am na beneen yoo xam nee naa yeeyaay yàllaa ko yónni mu ngi tudd Muhammad waaye nag gis nga teey lu baax la rambax rambax mooy xëj nit Abu Dar dina ne bi ma déggee loolu mu ne ah Unays fekk Unays rakkam la woon mu ne ko Unays mu ne naam mu ne ko man de aw ma jot waaye dégg naa yeeyaay am na benn waay bu nekk Makka yeeyaay nee na yàllaa ko yónni yeeyaay léegi damaa bëgg nga demal ma yow comme ku muus nga nga xool bu fekkee xool nga aw doxalinam gis ni kii yàlla moo ko yónni nga ñëw wax ma su dee yàlla moo ko yó- yónniwu ko nag ma dellu ca la ma nekkoon unay si nee na ma daal di départ daal di ñëw bi ma ñëwee vérifier ba xool daal di dellu abu dar ni ko waaw loo ëndaale ci sëri ca mu ni ko man daal waa ji ma gis gëm ay waxam laa gën a jege di ko wedd ndax gis naa ne day digle lu baax di tere lu bon te it ku baax la Abu Dar ni ko su ma yëgoon du ma la yónni bu doon loolu kay loolu kay gënoo ma ko xam ndax li nga dégg loolu laa dégg ci moom bu doon loolu dong la kay daa jar ngay dem léegi takkal ma samay bagage man ma dem mu daal di takk ay bagage am wut gurtab ndoxam ëmbab cereem daal di départ jëm màkk jëm jëm Madina wala jëm màkk boobu booba yonent bi mi ngi màkk sallallahu alayhi wa sallam bi Abu Dar départ ba yegg si màkka bu ngeen seetloo gis nga dëkki kaw yi bokku ñoom dëkku taax yi fii benn waaye mën nay jaabanti fii ci koñ bi dem ak a ñëw nga romb ko yooyu doo xam ba xam fu mu dëkk kenn faalewul sa morom waaye gis nga kaw ga kaw ga paaye dañuy toog nii di waxtaan benn waay di ñëw ñu seen ko lu sori nga dégg dëkk bi da am na gan tey nga gis paa man lii may wax ni maa ko fekkee paa boo xam ne aw daal dong lay xool daal la wu jàll rek mu ne ah dëkk bi am na gan de tey maanaam dafa mel ni subhanallah kéemtaan la boo xam ni boo ko dund boo ko dund da lay jaaxal doo xam lu mu doon te du ay njabar ak yooyu de du njabar li may wax lu ma leeral ndax ma koo fekkee du njabar du ngisaane du lenn xeeti xam-xam dong la tànk bii tànkab diw la gis nga nun da ngay dem bi ñu nekkee gone nga xam ne da ngay dem nga doon dugg tool jàmbur nga jël loo warul jël sàcc mangoog wala kii paa bi day ñëw mu ne tànk bii tànkab diwa gis nga te buñ ko toppee day non am na góor gu ma fa xamoon goo xam ni saa buñ nee biig sàcc nañ diw rek moom la nay wooye gis nga tànk bi maa ngi fàttaliku da ngay toog pour tànku sàcc bi ba mu jéggi ci raay xam nga raay day am ay xeer mu topp mën na koo topp ba fa mu dugg dafa am yenn xeeti mbir yoo xam ne bàyyi xel ni mayu suñu borom la loolu moom suñu borom mooy maye lu ko soob ah Abu Dar dugg si ci dëkk bi xam ni moom gan la gaa yi xam ni gan la waaye nag xam nga mu nekkoon koo xam ne ku yeewu la ndax defe naa métier mi mu doon def métier la mu la moo war a yeewu doo koy def Abu Dar nee na ma dugg si ci dëkk bi romb rek ku ma romb rek du ma ko faal du ma wax ak kenn ki mu njëkk a dajeel mooy Ali ibn Abi Talib Ali ni hada rajulun garib kii daa mel ni étranger la ci dëkk bi de qultu naam ma ni ko waaw waaw Ali nee na xam nga ñoom nag dañoo mënoon daaw bokku ñoog ñun ñoom dañoo mënoon daaw Ali nee na bi ma xamee ne étranger la sama xel njortu ni xëy na yonente bi lay gëstu ci sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko kaay ñu ànd kañ dem nee na Ali mi ngi nopp maa ngi nopp waxut waxuma nee na ñu ànd Alioune ni ma amoo foo fanaan ma ne ko déedéet mu ne kaay fanaan sama kër ba léegi laaju ko dara nag mu fanaan këram ñu yeewu ci suba ah Aliou daal ni waaw waa ji moom xanaa heure ñibbeem lee mu jot mu ne ko xultu laa ma ne ko déedéet ñibbeegu ma de mu ne ko waa kon lu andi ci dëkk bi gis nga ni mu teeyee de démb ba tey lu andi ci dëkk bi mu ne ko mën naa la ko wax de waaye danga may sartal ni ma mbir mi na yem suñu diggante. fii de tey koo ne na yem suñu diggante bu soobee yàlla booy pare rek affaire bi jaar ci haut-parleur yi dem waaye na yem suñu diggante maanaam ñoom kufran wa islaama na ci bokk yam li ëpp ci ñoom kufran wa islaaman da ngay respecté say kàddu xoolal yéefar buy respecté kàddoom ana jullit ñi su boobaa nee na Ali ne ko bu soobee yàlla dana yem suñu diggante mu ne ko damaa dégg ne dafa am benn yonente yee yaay nee na yàlla moo ko yónni man nag léegi ma bëgg a ñëw xool su fekkee yàllaa ko yónni ma topp ko bu ko yàlla yónniwul ma defaraat Ali ne ko da nga may topp dëkk bi nag dafa am ñoo xamante ni islam bi rek lañ bañ soo ma toppee topp sama gannaaw may jiitu soo ma gisee ma sëgg defar defarlu sama daal rek xamal ni danger ngi ñëw jëlal sa position sa gars yi dañu yeewoo de mu ne maanaam pour pour nit bañ ñoo bett su ma la jiitooy dox nga topp sama gannaaw su may dox di dem rek xamal ni dara xewul waaye waxtu woo ma séenee ma sëgg di defar defar lu dàll bi xamal ni dara néew ci danger yi ñëw jëlal say matukaay nee na mu jiitu ma daal di ciy topp nee na bi mu jiitoo ma topp ci muy dem ak man amul benn problème ba yegg si ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di yegg si nag daal di sukk ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj koy laaj yonent bi tontu xam nga nag koy laaj nag tey tey gëstuwaale mi ngi xool sikkim bi mi ngi xool bët yi mi ngi xool waaj yi yëre yeeg tubay jig fi mu yem ak lu nekk rek mi ngi xool ndax ñoom dañoo mënoon a natt bi mu nattee ba gis ni kii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la dal sukk ci kanamam jox ko ñaari loxo yi daal di dugg ci lislaam bi mu duggee ci lislaam yonent bi ne ko Abu Dar mbir mi nag ci mbirum sekkare la fi mu nekk nii deesu ko wax ca kaw mu ne ko deesu ko di wax ca kaw mooy lan la as wallahi la asru xanna biha bayna azhurihim li nit ñi bañ ñu wax ko tey ma wax ko man da nëbbu amul ay nodd fii di nodd ca kaw wala ngay taxaw fii di julli ji ayaala sala ayaalal fala xala boo ko defoon rek nga fanaane alaxira abu dar mu ni loolu de tey maa ko fi wax ñu ni déetawaay mu waaxu dem ba ca jàkka ja fa tolloog espace ba espace vide ba mu daal di taxaw yuuxu ya maachara quraysh inni ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah dëkk bi tàkk nag kër yi nga seen nit ñi di génn am koo xam ne muy génn kuur la génn kii génne semmiñ kii génne jaasi maanaam daal mooy musiba joo dégg rek loo njëkk këf rek daw ak moom kudd ci mwaar sax nit ñi génne nañ ko keram dañ koo dóor a dóor ba fi mu taxaw waxuma la deret ji ci suuf waaye yaram wi ci boppam pour nga xool espace bu amut deret jafe na xam nga ni loo jàmbaare jàmbaare ponkal song ay ponkal song la dañ koo dóor ba mu ni jànjang xëm bi mu ximmalikoo dal di jug xam nga boo ximmalikoo da ngay xaw a jaaxal lu xew lu xew xelam dellu si waat mu ni ah maata li ma doon wax moo tax ñu ñu ñu ñu kii ma fi muy waxaatee rek abbas dal di tëll yegg si abbas ni waa lu xew ñu ne ko xanaa bandi bii naan ay li muy wax sax kenn bëgg koo tudd li muy wax sax moom la ñuy bañ a tudd ñoom xam nga rek gis nga laa ilaha illallah du nu kaf ba tudd ko du nu kaf maanaam ay di ko nettali waat naan nee na laa nee na laa ilaa xam nga nee na laa ilaa la waxu ko yow li mu wax nga nettali déedéet dañ naan ñoom kay li mu wax kay kenn du kenn du ci jaam gis nga ñu njëkk ña dañoo sérieux woon ci liñ gis nga benn waaye nee na même booy nekk saay saay sax sérieux ci caay caay ka maanaam looy def rek sérieux ca ñoom ci boppam même dañoo nekk ci ay saay saay waaye sérieux xool nit nitu tey dañuy nekk ci dëgg ba duñ ci sérieux bari na koy wax laa ilaha illallah kee ko tane ndax kee lu bon bon bon am na cër yu mu jox suñu borom daa am yu mu bañ gis nga abbas ni ko yow eh yaay kan mu ni ko man la abu dar foo dëkk mu ni xifaar abbas ni laa illa yéen da ngeen a rek yéen xanaa xamu leen waa xifaar xifaar ara yi leen ko ngeen xool yéen da xam ngeen am ngeen rixlata chitaay wa sayfi di tukki fii di tukki fii kii de bu ngeen ko rayee na leen wóor ni yéen moom seen tukki yee jeex na waa xifaar dana leen rey dañ leen dana leen rey yéen ñëpp gaa yi dofuñu xam nañ leen wax ñu ne waa jugal dem sa yoon mu jóg ñu defee day ñibbi benn waaye yóbbu ko këram mu sangu ba deret ji dañ mu xëyaat suba ni baax na ba ma yeewuwaat suba ca waxtu wa bi mu yeewuwaatee ci suba ca waxtu wa yegg si waat bi mu yegg see gaa yi songati ko mu waxati la mu waxoon gaa yi songati ko dóor ba mu daanu xam muy ñaareel bi yoon abbas déggati ko génnati ni li ma leen wax démb de bàyyiwu leen ko xel waaye yéen a ngi jaay seeni bakkan waa ñu yóbbuwaat ko këram mu sangu ba set ni waa baax na ba subaati ca suba te nag bi mu yegsee mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah kenn faalewu li tax gaa yi faalewuñ ko gaa yi xam nañ ni gis nga kii boo ko toppee da nga koy rey rek waaye dellu gannaaw mu wëlbati ko beneen côté bi xam nga comme ay micro amut mu wax côté bi affaire bi jàllul mu taxaw bi mu ne maa ni ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah gisul kenn kenn génnul mu wëlbati ko beneen côté bi tollanti ko waat kenn génnut mu wëlbati ko beneen jiha bi def ko ba muy ñeenti yoon kenn génnut mu ne ah da ngeen a ñeme wut ñëw leen gis nga xoolal xoolal gis nga ngëm ngëm lu ne mën na koo def loo nit abi loolu amee nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko gis nga newoon naa la lii lépp bu mu la ci fekk demal nga bàyyi sa sa mu ne ko déedéet baat bi moom naka la ñuy nekkee ci dëgg ba noppi di nëpp duma duma ci fekk donte nag loolu moo yeyoo waaye ngëm gëf moo toll foofu te xool day doog a tuub de laa isa jaa wala alam nasra wala quleel kafiruna wala fatiha du dara lum jàng nag waaye gis nga ngëm-ngëm bi léeg-léeg day toll foo xam ni njàng mi sax daanaka munta jëf jëf jëf ju mel noonu am na beneen riwaaya nee na dama wax sama mbokk bi unayt ni ko demal nga xoolal ma nee na mu daal di ñëw ni ma ah waa ji daal gis naa ko muy changé nit ñi naan leen dugg leen fii génn leen fële ma daal yaakaar naa waxkatu dëgg la comme riwaaya bee rek nee na ma daal demal sama bopp nee na bi ma demalee sama bopp mu ni keroog biñ may dóor am na koo xam ne ak yax sax la yore yax maanaam gileem gu ñu fees ba noppi gi tànk bi maanaam kudd ci mwaari yeeg paaka yeeg jaasi yeeg xepp yeeg ah yëpp kudd luus yeeg nee na am na koo xam ne ak yax sax la yore nag di ma ko koŋ ci bopp ngir bañ rek mu wax baat boobu di laa ilaha illa allah muy dañ maa def mu ni ka anni nusubun ahmar maanaam daal bant boo samp sotti ko deret ba mu xonq cor mu ni noonu laa meloon nee na bi yëf yi paasee nag ma daal di xool laajte ana zamzam ndax maa ngi ko doon dégg ñu ni ko zamzam mi ngi ne mu dem dugg ci néegu zamzam bi bi mu fa duggee nee na mu daal di sangu ca zamzam ba ba set nee na daal di fay far làqatu xam nga zamzam bi barab la boo xam ne ab néeg la amaan lamp yi amul xëy na ruqe na jamono jooju nga xamante ni ku niitu doo gis mu ne ma am ruq boo xamante fa laa toog mu ni am naa fa ci ay fan salaasin trente jours def naa ko biir zam-zam yeyut mbiskit lekkut ceeb lekkut dara zam-zam rek lay naan mu ni man damaa dem ba su ma lambee okkanu bat nii xam nga léeg-léeg gis nga nit bu amee yaram bu commencé am yaram da ngay gis def ay ndom comme na ndombay baat ndombay ndigg nee na dem naa ba damay lamb sentir ni man mii maa ngi commencé duuf nag di am yaram te zam-zam dong lay naan ca la ko yonente bi déggee sallallahu alayhi wa sallam ni ah zam-zam kat nag lekk ku bëgg a lekk la naanu ku bëgg a naan la zamzam fanweeri fan nee na dara duggut sama gémmiñ gi lu dul zamzam xam nga loolu doy na sëkk moom loolu moom doy na sëkk waxuma la nag mu tegati nag di am yaram nag faf maanaam jëmmi di ko dundee moom kese rek kéemtaan la tey nag boo demee zamzam daanaka yu bare bare bare yoo xam ne ay xeeti kéemtaan am na ko ca ci xeetu di ci faju li gën a kéemaane mooy gis ngeen zamzam kañ la woon te jamono yonent yàlla ibrahim ba ci jamono yonent bi salaa salaam boobu ñaat da ngaa yaakaar ni gaay gaay yi xamoon nañ zamzam de du woon lislaam rek a xam ñoom xamoon nañ zamzam di ca naan di ca faju ba yonent bi ñëw mu continuer ba tey te ba yowmal qiyaam ban teen moo yàggee noonu mbaam ndox lañ xam mu yàggee noonu mu dul géej gi fi suñu borom def te it nag nit ñi dañ ci daan faju ay nit faju nañ ci ba tàyyi gis nga nag bis boo jàppee ni da ngay indi ay technologie yéen yaakaar ngeen ni zamzam xel warta woon a mën a nangu gaay yi branché ko ay robinet dugal ko seen biir kër yi ñoom buur yi xanaa xel war naa mën a xalaat loolu de jàpp naa ne bu dee technique ak dooleeg alal ju ko def donc am nañ ko waaye mënta nekk boo ko defee ndox mi du ñëw dañ koy fekki de foofu nag borom xam-xam yi wax ni zam-zam faw nga dem ba fekk ko fa mu nekk tànk ca naan mu doog lay faj déer loolu wérul am na yooyu xam ne boo xamee maqaasidu sharia sharia du ko jafee lay noonu déedéet comme mënoo dem fekk comme kaaba ga du la fekk si ndox ma mën na laa fekk si ak yeneen ak yeneen nettali nañ ci ba tàyyi defe naa bu ngeen fàttali ko ci xutba ji ñu ci defoon ci si silsilatu taarixi binaa il kaaba waxoon naa ay qisas yenn yoo xam ne ay nit fajoo nañ ko ci zamzam te ila yawmina hada mi ngi am ay nit di faju ci zamzam nee na bi loolu amee am na beneen riwaaya boo xam ni nee na dafa nekk ci biir zamzam ba mu yàgg bokk na ci li ko feeñal nag lii may wax nii bokk na ci li ko feeñal benn bis dafa nekk ci biir zamzam nee na am ay nit yoo xam ñu ngi wër kaaba gi xam nga gars yi dañ doon wër kaaba gi di jaamu wa ma kaana salaatu ma indal bayt illa mukaan wa tasdiya da ngay gis koo xam day summeeku comme ni ko yaayam juree woon yaa ngi dégg di wër kaaba gi lu tax lu tax loolu mu ne yére yi dama cee mooy yàlla moom moo tax bëgguma kaa sol waaye yaram bi de ba moyut yàlla bay wër moom dama daa am yoo xam nit du xalaat nga gis koo xamante ni buy wër xam nga nu muy def mukaa wa tasdiya tàccoog sar xolle di wër kaaba gi di tàcc di sar xoole di wër kaaba gi di tàcc di sar xoole ba am lim ba nga soxla doog ni tawaax naa dem sa yoon labbayka la sharika lak wuy si nañ la yow yàlla kenn du la bokkaale kenn lu dul waajoo xamante ni ma ngi ca kër ga yaa ko moom moom ñu waaye nag ñoom moom lañ def yàlla kay yaa ko moom moom ñu kay moom lañ war a jaamu benn bis ñaari jigéen ci bis boo xam ne mi ngi tomb ak fukki fan ak ñeent ñett juróom jamono jooju weer nu muy def day leer nit ñi dañuy ñemee génn kon waxtu guddi mu seen ñaari jigéen di wër tey ñaanal isaaf ak naayila isaaf ak naayila si ci yàlla yi lañ bokkoon ah amoon nañ ca noox amoon nañ wadd suwa yaxus ya yaoq nasr jamono yi saa salaam amoon nañ laata ak ozza ak manaata ak saalisatan uxra ak naayila ak isaaf ak xeeti yàlla yu baree bari ah Abu Dar dégg ndaw si waa ñaari jigéen ñi kenn ku ci nekk naan di màkk bàkk yàlla ji isaaf ak naayila mu ni buñ dee góor ak jigéen kenn nañ jël kenn ki takkal ko ki ci des may ko may ko jabar maanaam yàlla yi lay wax rek jigéen ña daw parce que problème mooy kan moo war a ne foofu kenn du fa nekk isaaf ak naa yi la ñu ngi leen di ñàngam ñu ngi leen di jaamu mu ne bu fekkee góor la ñoo jigéen nañ jël kenn ki takkal ko ki ci des rek ñaari jigéen ñi da daa départ bin départ na ci lañ ñu gaay ak njuuma ak njuuma ma nga ca ka- ka- kawetu kaaba ga ci la commencé def tombeeg nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw bi yonent bi yegsee daal di ànd ak abubakrin ci la ko yonent bi daal di gis sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko laajee mu ne ko fanweeri fan laa fi am loo doon lekk mu ne ko zamzam kese mu ne ko loolu day ah innaha mubarakun innaha taamu tumin moom kat lu barkeel la ndax ndox la waaye tamit day remplacer ak lekk noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax abu da abubakar ni ko kon kii yaa koy yóbbu nga ganale ko te loolu daana ko def léeg-léeg bu amee gan danaan dénk naa ko diw diw demal yóbbu ko nga héberger ko ci guddi gi noonu abu dar daal di koy yóbbu utal ko ay xeeti zabib xeeti fruits yi nga xamante ni moom lay lekk bi mu paree nag ca la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah man day sama borom fekk jamono jooju lii muy wax jamono ji muy am mi ngi fekk ñu ngi digal julli ñi ñenn ñi di gàddaay ñi di dem Éthiopie ñi di dem Madina nee na bi loolu amee mu ni ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inni innahu qad wujjihat li ardun zaatu naxlin la araha illa yaxrib sunu borom kat mi ngi may waaj a orienté ci foo xamante ni ay tàndarmaa fa nar a bari foofa gisuma ko fenn fu dul mu nekk madina nee na bi loolu amee yonent bi ni abu dar hal anta muballighun anni est ce que yow mën ngaa nekk sama ndaw ma yabal la nga dem woote ji ci l'islam mu ne waawaaw nee na bi loolu amee yonent bi ni ko asa allahu an yanfaahum bika wa bi ajrika fihim aw yajaraka fihim amaan na yàlla jariñ la boo wootee amaan na yàlla wool la wo yool la te amaan na sunu borom bu ko waxee rek mooy day am wala yonent bi wax ko noonu mu daal di dem pour woote ca ab daaw te xam ngeen loolu daana am ndax gis ngeen Tufayl ibn Amrin ad-Dawsi ma dëkkoon Daws fa Abu Hurayra dëkk xam ngeen Tufayl noonu la defoon ba ci la xëccaale ponkal moom di Abu Hurayra radiyallahu anhu ci la ko yonent bi ñaanalee ni ko demoon ña yonent bi ñaanal ma mën a daawa yonent bi ñaanal ko am leer goo xam dafa nekk ci jëbi boo ko dandee da ngay yaakaar ni ab projecteur laa jàkkaarloo te takkut dara. mu dem ba ca yoonu mu ni xam naa sama nit damay dem ñu naa ma yow mi dañ laa njabar ak da ngay njabar moo tax nga def lii leer gi na ko yàlla def ci sama làmmiñ bi ngir ku ma daawa nga ñëw mu dellu siwaat ñëw ci yonent saa salaam yonent bi ñaanal ko mbir mi dem ca làmmiñ wa sunu borom barkeel ko lool jàpp naa ne barke ba ñëwub Abu Hurayra doy na ci sëkk noonu nee na mu dem daal di commencé di daawa bi mu yegsee comme moom ab sayid la ab sang la woon kilifa la gis nga léeg-léeg am na ñoo xamante ni boo leen bëggee wàññi rek fexeel kilifa ga tourné bu tourné rek ñëpp tourné nee na bi mu commencé di daaw a genn wàllu dëkk bi bu doon mille personnes la ñu ni cinq cent personnes yépp dugg nañ ci l'islam genn wàll gi ci des ñoom ñoo ñu dëgër bopp ñu ñu ni ñun daal dinañ dugg waaye nañ bàyyi ba yonent bi ñëw Madina su ñëwee ñu doog a tuub keroog bi ñu déggee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na Madina ñu tuuboon ànd ak ñiy waaj a tuub ba leen yonent bi seeni dafa kontaan lool mu ni gifaar gafara allahu laha yéen waa gifaar yéen ñi ñëpp yal na yàlla baal leen seen i bàkkaar allahu akbar am na beneen dëkk bu ca topp muy aslam mu fexe bañ tub mu ne aslam saalamaha allah yéen waa aslam yàlla na yàlla jàmmoonteeg yéen allahu akbar xam ngeen yii ñaan la yoo xam ni jàpp naa ni loola rek bu dalee ci seen kaw mën naa yombal seen ak góorgóorlu ci diine abu dar commencé di daawa nekk koo xam ni zahidan aabidan ku dëddu addina la ku ragal sunu borom la ah soxot raw na ko xandaq raw na ko badar raw na ko bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag tombeek gazwatu tabuk ci gazwatu tabuk ba muy am ci la ñëw ci madina déglul keroog tabuk ak kéemaanu sunu borom gi nga xam ni yàlla defal na ko abu dar ba yonent bi waxal ko wax ju siiw ja mooy waaye ngi nii boo xam ni buy dox mi ngi nii dox daa wéet te buy dee tamit day wéet moom doo ngay faatu buy dee keroog bi ñu dem tabuuk xam ngeen ne tabuuk mbokk yi del dégg rek ñu la koy nettali waaye jàpp naa ni day bu nu yàlla nattu woon ba nu fekkee ko moo tax kenn ci magi salaf yi daa dégg benn waaye bu naan hey bu ma fekkee woon badar man dinaa lii dinaa laa xam nga toog di reewe dafa neex lool dafa yomb waaye dama ni saxaaba yeeg nañ meloon tabuuk dafa tombe woon ak cooroon danaa gaa yi war nañoo xam cooroon de jamonoy nawet boo xam ni naaj waa ngi tàng tàng tàng ba da ngay gis ku dox ba ni këlëb daal nga gis ku dem ba mu yàgg gileem gi mu waroon moom lay rendi pour génne réservatoire bi ne ci biir mbuus mi pour naan ko bu dul loolu day dee allahu akbar naaj wu tàng jër affaire bi metti lool jullit ñi soxlaa dem seen tool yi naaj wi tàng na metti na yonent bi ne ayoo ñu dem Tabuk ah jarabe ñi xam nag li yamise allahu alxabisa min altayib am na foofu bu ñu fa yeggee nag ci la ñuy xam gaa yi nga xamante ni nag ay sentiment leen fi bàyyi ak ñi nga xam ne yàlla leen fi bàyyi saxaaba yu bari mbokk yi keroog dañoo tardé yaakaar naa wa ala thalathati alladina xullifu mada xadas laalu ma ko kon jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote saxaaba yi daal di ñëw am ñu tardé defe naa yéen a ngi fàttaliku ñett ñooñu wa ala salasati alladina xullifu ndeysaan te kaab bokkoon ca ñett ñooñu nga xam ne ndeysaan dañoo toog ñu ni ñun duñ dem ñun duñ dem ndax yëf yi daa xaw a metti kaab nee na yonent bi dem na ba ab diir sama xel di ma yedd ma ni ah kaab kaab li nga def wóor na mooy waxtu li war a fi naan waxtu mu ni ka kaab nee na ma ni sama bopp kaab ah kaab li nga def ndax wóor na yonent bi ak abubakar ak saxaaba yu baax ya dem nañ xare yow kaab nga nekk fii ci dëkk bi kaab tee ngaa war saw fas dem mu ni seytaane naan ma ah mooy yonent bi dem na ba nopp bàyyi rek bu ñëwee rek nga négocier ko mu jàll loolu bokk na ci lu ko dugg subhanallah mbokk yi metti na ci moom de bi yonent bi dellu see nag ndeysaan nee na bi ma yégee ne yonent baa ngi yegg si sama fit wi ni toxit nee na bi ma séenee yonent bi tabassama alayya tabassuma almughdib allahu akbar ndegi nit mën na laa reetaan fekk na mi ngi la mere te xamoo ci dara mu ne yonent bi daal di may muuñ muñ goo xam ne boo ko séenee da nga yaakaar ni kii dafa kontaan ci man waaye man du ma dof xam naa ne tabassum gii tabassumul mughdib la muuñu ku mer la nee na gars yi daal di commencé ñëw ñenn ñi naan waaw xam nga man damaa liyoon di taqale ay nar mooy naafeq yi rek di nar ay nar kàcc ay kàcc ku dikk rek joxe ngant rek yonent bi ne waa garaaw demal yal na yàlla bàlla sa bàkkaar nekk ñoom ñëpp ay kàcc lañ mooy naafeq yi kaab nee na bi ma gisee gars yi di ñëw ñu leen di pardonné ma ne ah mooy xoola xam nga nu may def damay def nin def rek bu ma paree jéggalu yàlla nee na bi ma ñëwee ba yegg si sama xel ne yar bu may dee man kaab na ma dëgg rey ma yegg si yonent bi ni ma waaw kaab foo newoon ba ñëwoo mu ne ko xanaa topp sama bànneexu bakkan rek allahu akbar hada huwa al ixlaas hada huwa alixlaas wa hada huwa sidq ah léegi nag loo ci xamee yonent bi mu ne ko xanaa bàyyi ba yàlla wax ci say mbir rek sunu borom daal di jox yonent bi ndigal nañ leen embargo ñu tegalee ndeysaan ay ay fan lu ëpp weer kenn du wax ak ñoom nee na damay ñëw julli si ci jàkka ji mel ni man du ma jullit allahu akbar wallahi mbokk yi kaab nee na dem naa ba suuf si yàlla te li muy yaatu yaatu daa mujj xat mel nib néeg ci man ku ma jege ci jàkka ji sawaay nga xool fële su ma ne la salaamaaleykum nga xool fële ah abu qataada mooy xaritam intime boo xam ne ñoom ñaar liñ naan ku ne am nga xaritu benn bakkan mu ni xaara booba ma dese mu ni ca toolam tàndarmaam laa ko fekk ni ko abu qataada salaamaaleykum wa rahmatullah nga xool fële ma ne ko abu qataada yow laay waxal de man la kaab salaamaaleykum wa rahmatullah mu xool fële ah nee na rek ma capp nag jooy nag ma jonkan jooy ci laa ni kii moo ma dese woon kii su demee ba ma nuyu ko mu ne ko abu dar mu ne ko abu qataada abu qataada daal ni wax kaab wala kaab moo wax abu xay ni ko xanaa yow doo seede ne man ku gëm yàlla laa akub yonenteem mu ne ko loolu wóoruma de yàlla la wóor akub yonenteem ndeysaan mu jooy jooy metti sax xam nga dafa neexul nag ak foofu mu toll abu qataada ak nu mu tuddati kaab fi mu toll ndax doo seede ne man jullit laa mu ne ah wóoruma de te ñoo doon ànd wóoruma lu tax wóoru ko parce que yonent bi joxe ndigal moom moo tax bu joxee ndigal rek mu jeex nee na ma jonkan jooy jooy yu metti addina xat ci man lool ma ñibbisi ci kër ga fekkaat fa beneen musiba mooy yonente bi nee na soxna si bu mu séqateeg man dara waaw na taffale ma taffale ndeysaan affaire waaye nag ku amoon ku amoonu dëggu la nag teewut li muy metti metti waxtu wu jot mu dem jàkka ja donte duñu wax ak moom ba bis jot rek sunu borom daal di wàcc aaya ja wa ala salatati alladina xullifu xata ida daqat alayhim al ardu ma rahbat wa daqat alayhim anfusukum aaya ja daal di wàcc sunu borom daal di koy baal ña nga xam ne ñoo fenoon nag sunu borom rëbbu leen am na benn waay bu ñëw abu xaytuma ba léegi pour wan la gaswatu tabuk ni méttee nga doog a ñëw ci abu dar abu xaytuma nee na damaa yor ñaari soxna ma génn ñëw xool ba jul ma ne ah man daal damay génn fii taxawaalu ba gars yi dem ma doog a ñëwaat ci dëkk bi bu ñu waxee rek may nekkuma fi woon xam nga lay moom daa yomb nee na ma génn ba gars yi dem ma ñëw fekk sama ñaari soxna ñi ngi ma lalal ñoowaan gi ci ron keppaar gi tegal ma njaram soow bi may yegg si tàngoor waa ngi may waaj a lakk ma yegg si ci keppaar gi mu mel ni ku génnee sawara dugg ajana nee na bi ma ne yunn ci keppaar gi rek sama xel dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ci kër gi ma nga ca naaj woon rek ma fallaxe soow mi mu fallax soow mi mu tuuru mu daal di war a aw fasam soxna yi naan waa kii fu mu jëm faalewu leen rek mu tëppati dem kooka mucc na am na sens am ñu bëri ñu des saxaaba yi dañuy jékki-jékki mu yàgg ñu ne ah yonente bi yonente bi moo naan ana diw ñu ne ah diw de yëg seegut mbaa jàmm yonente bi ne bu yàlla ndammee ci moom jàmm dina ñëw waaw ana diw ñu ne diw de yegg seegul yonente bi ne mu ne ah bu yàlla namee ci moom jàmm dana yegg si ana diw muy malik ibnu xay xaysuma ah malik ibnu daxsan benn waay bu mel ni ñun rek mu ni hee kooku de xamoon naa du ñëw kooko nangam beneen mbokk mu góorgóor ni koy ragalal yàlla ragalal yàlla li ngay wax wóoru la nit booy wax da ngay waxul la wóor xam naa kooku mooy ku mel ni ñun rek xam ne léegi yenn occasion da nga ciy profité pour taxal sa deru mbokkum julit mu ne ko ragalal yàlla loolu wóoru la de tëjoo sa gémmiñ gi gaa yi jékki-jékki mu yàgg ana abou zar ji nag mel ni takkarnaase nag ndax ku ne waroon a mën a tardé am des abou zar lu tax ndax yonent bi moo ni xobi garab yi tiimuñu ko gën a dëggu ay kàddu abou zar mbokk yi seede bii kuñ ko defal war a tardé bi ko yow de war a tardé ana abou zar ji takkarnaas ñu jékki-jékki moom yàgg rek ñu seen benn pënd buy jóg gaa yi naan am na kuy ñëw de xaw ma kum doon nag pënd lan moo ko doon faral di waral waral fas wi bii nag waaxu mu tàng mee ko waral allahu akbar gileemam la war di dawal di dawal di dawal ba gileem gi xoox mu dóor dàq gileem gi bañ mu dóor dàq gileem gi bañ muy wekki bagage yam tegoon ca gileem ga roof ci digg ginnaaw gi rek départ fa la bàyyi gileem ga saxaaba yi seen ko na am na benn pënd bu jóg de kon gileem la war a doon wala fas tey tànk yi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen xam ngeen koo gars yi ne xamuñu ko de mu nekk koo xam kenn waru ko mën a ndax poussière bi yonent bi ne ko kun abadar ah waaye na nekk abadar waay ñu toog tuuti rek gars yi ne ah yow yonent bi da nga kaa xamoon ne moo ne abudar la de bu mu yegg see yonent bi ne ko waaw abudar foo ne woon mu ne ko tardé rek da waaye fas yéene ma woon sax bañ a ñëw sama gileem laa war nag rëppatal ba mu xoox xam ngeen xoox mooy loo xam ne dem na ba nanguutu la dox ndax sonn nee na ma dàq dàq mu nar maa tardeel bagage yaa ngi nii moom a ñaqaloo moom laa yenu yonent bi xool ko ni ko rahima allahu aba dar tamshi yamshi waxidan yamshi waxda wa yamuutu waxda wa yubaatu waxda yal na yàlla yërëm abu dar moom di mi ngi nii bi muy dox moom rek ànd bis buy faatu it fa muy faatu moom dong nga fay nekk du am ñu ko wéttali waaye bu ko yàlla dekkal moom dong ngay ànd allahu akbar gis nga noonu la amee bis bu ñu yeggee ci faatoom dafa wéetoon cib dëkk ba xaw tuuti kon ñu ni ku ko suul du ko am soxnaam la nekkoon ak doom yu ndaw ak yaayam dig màgget waxoon na leen ko nag neewoon na leen yonent bi wax na ko de te li mu wax ay dëgg xam naa bu ma faatoo du ma am ku ma suul waaye nag yàlla du ma seetaan de defar leen ma ngeen defar perkaal ba mu jekk teg ma ci pegg yoonu yàlla dina yabal ki ma war a suul mu ñëw noonu la ko defee Abdullah ibn Mas'ud daal di yegg si fekk mi ngi jóge Kuufa bi mu ñëwee ba yegg si rek daal di fekk ñu taxaw ñu romb leen ñu ne lu xew ñu ne kenn ci saxaaba yonent bi de moo faatu mu ne ah nan ko xool ba xam kum doon bi mu muree xar kanam gi rek dafa daanu ci suuf jooy jooy yu metti sax moo ko jël jekkali ko defar ko sang ko sang ko suul ko radiyallahu anhum wa ardaahum kon Abu Dar mbokk yi nii la meloon ci dëggu Abu Dar daa defe naa xamoon ngeen ko dar si bi passé de defe naa gis ngeen ni mu mel ci ak dëggu Abu Darda benn bis daa fekk moom abu dar abu dar daa muy tabax këram xanaa nag wax dëgg yàlla tabax boo xamee tabaxu ban la amul ay feer amul béton amul dara lu dul néeg boo mën a dëkk ndax ban sax nga koy defaree jàpp naa ni loolu wax dëgg yàlla ci dëddu àddina la bokk du noonu abu dar daal di ñëw fekk ko fa ni ko gis nga ma fekkoon la ngay cappax cappaxi say loxo ci ay dem àll moo ma gënal ma fekk la ngay cappax cappaxi sa loxo bi ci ban bi naan da ngay tabax kër goo dëkk yow xanaa doo dee suba daal di koy mere ci loolu dem moo tax ma ne kooku bu ñëwoon fii du wax ak kenn ci ñun kooku bu ñëwoon fii du wax ak kenn te ban tabaxu ban laa tabaxu ban mu ne ko fekkoon la nga jël sa loxo yi dugal ko ci ay dem àll di ci lëmbañ lëmbañi moo ma gënal sa loxo yi nekk ci ban bii nga naan da ngay tabax foo dëkk xanaa doo dee suba daal di dem benn bis yonent bi dafa ñëw ni ko Abu Dar waaw Abu Dar mu ne naam waaw Abu Dar doo tabax foo dëkkee doo man ko lu may dox di tabax te lee ma dem waaw foo nar a dëkk mu ne ko xaaral ma dem ci jàkka ja toog fa mu ne ko waaw boo toogam yàgg waa jàkka ja dàq la nooy def mu ne boobaa ñoom xam nañ sama jaasi ji ba xam dañoo moom jàkka ji ba di ma fa dàq yonent bi ne ko déet déet Abu Dar déet foofu moom bul ci dugg ndeysaan radiyallahu anhu wa arda benn waay mas naa ñëw fekk ko mu toog ak soxnaam comme ni mu ñëwee ci Abu Darda ndax ñoom nee naa ay coppi lañ dañoo nuroo bi mu ñëwee ci moom bu daal di koy laaj ni ko waaw yow ana say bagage yaag sa soxna mu ni ñun ay locataire lañ dañ fay ñëw rek te fan war a jëm dañuy bañ bu ñuy dem bagage yi sonal ñu moo tax yóbbante nañ ko foofu mu ni ko fan mu ni ko àllaaxira ndénkaane yu rëy yi nga xam ni Abu Dar doon na ko dénk yonent bi yonent bi doon na ko dénk Abu Dar radiyallahu ndax yonent bi da ko bëggoon sallallahu alayhi wa sallam Abu Dar bëgg na yonent bi lool yonent bi bëgg ko lool tax na yonent bi ne ma adallati adallati alxadraau wala aqallati alxabaraau min di lahjatin asdaq min wa awf wala awfa min abi dar shibhu isa ibni maryam yonent yàlla bi nee na xobu garab yi mbaa pënd ñu mbaa pënd yi daluñ ci kaw waaju gën a dëggu ni muy waxee ay kàddoom ba mel ni abi dar mu ni fab sax boo bëggee wut photocopie Isa jël ko moom mooy Isa mu teew nag yonent bi doon na ko dénk ni ko abu dar wala abu dar mu ni awsaani xalili bi sab'a saxaaba yi daanañ ko def nag ku mel ni abu hurayra ah nee na yonent bi doon na ma dénk bokk na ci lam ko doon dénk mooy balaa maa tëdd naa def sama witar doog a tëdd ndax booba jàngkatu xam-xamu xadis la woon bu tëddee mën naa bañ a tëdd ndax day sonn ci bëccëg bi lool mu jëntal dundam nag melul noonu woon noonu ñaareel bi muy daf ma dénk ni ma naay sàmmonteeg julli yoor yoor gis nga ci ndénkaan yooya mu ni sama sang bi dénk na ma juróom-ñaari mbir nee na amarani bi xubbil masakini wa dunuwi minhum daf maa digal naa bëgg miskin yi mooy képp koo xamee dafa ñàkk ma bëgg ko ñun nag duñ def loolu de ñun ku ñuy bëgg ku amus tuut ñun ku amus tuut la ñuy bëgg mu ne yonent bi daf maa digal naa bëgg ñu ñàkk ñi te di leen jege di leen dimbali muy benn nee na wa amarani an andura ila man huwa duni nee na yonent bi daf maa digal ni ma képp ku ma ëppale bu ma bu ma ko jéem a sax xool bu ma ko xool man daal toujours naa xool ki nga xam ne maa ko ëppale ñun looloo ñu sonal lu diw nga am nga bëgg ci am lu xew lu bees nga bëgg ca am gis nga mbébét mbébét yooyu wala tamnun tastakfir ngay mbébét di dem rek di réveil dem rek di tabax di tabax tabax tabax rek di dem mu ni daf maa digal ne ma bu ma xool ki ma féete kaw naa xool ki ma féete suuf nee na wa an laa asala ahadan shay'an yonent bi daf maa digal ni ma soo mënee fexe ba bul laaj kenn dara bul soxlaal kenn dara lii nag ndénkaan bi yaakaar tey dañ ko mos a dégg yonent bi dénk na ko ñu bari ci saxaaba yi taabiin dañ ko doon jëfe bu ma laaj kenn dara waxuma la dina laaj sax ay koppara ki ay ay yéree ki ay nangam déedéet bu waroon aw fasam tey karwaatam wadd nga nar koo for mu ni la tegal nga teg baal ma wàcce waaye yow li nga def nii mooy la muy damaa fas yéene du ma laaj kenn lenn te lii lenn ci lenn la bokk bokk na ci li mu ko doon dénk mu ni ko waan asila rahim wa in adbarat nay sàmm kóllëre di sàmm sama mbokk di ko jokk donte kooko faatu na ma dem ci ak njabootam ñun nag sunu ànd léegi ba ca tane ba ca tane mooy koo xam ni sa wëllëre la woon ngeen di ànd di jëflante ka di ko seeti mu di la seeti mu xëy xëy faatu nga coupé relation yi mu ni déedéet wéy at barat même bu wanee gannaaw sàmm ko. kóllëre ginnaaw lay féete xëy na moo tax olof di wax loolu doonte nag baat boobu nawa an maa jub na waaye nawa an maa am nay dëng-dëng yu ci nekk nee na daf maa digge woon aqul al xaq wa in kaana murran dëgg moom fu ma ko fekkee fu nekk même bu dee wax kaali dinaa ko wax moo tax it noonu la meloon nee na wa an laa axaafa fillahi lawmata laaib yàlla lam yoonal ma war koo def wala ma war koo wax moom faalewu ma ci ku ma ci critiqué du ma tiit lam war a wax rek laay wax bokk na ci ne waan uksira min qawli laa hawla wala quwata illa billah digaloon na ma ni ma naay bari lu may wax laa hawla wala quwata illa billah mu ni fa innahunna min kanzin tahta al arsh baat yooyu de am koom-koom la ci koom-koom mi nekk ci ron arsh zikr bu màgg ngoog borom xam-xam yi wax ci wàllu zikr gis nga laa hawla wala quwata illa billah waxuma la yiw wa ca nekk koom wa jay xaar sunu borom waaye nit nekk na ci ay lëj lëjë gi tiis tiis ba tàyyi mu génne ko ci loolu nag moom boo xoolee siira salaf lu ci bari lool la ci nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na maa xool ni ma yow Abu Zar da ngaa néew doole waaw mbokk yi koo xam ni yàlla wërsëgal na ko muy koo xam ni siggi ca kaw am doole ah ñemeñ dëgër fit ba ñëpp ragal la xam la yonent bi naan da ngaa néew doole waaw googu néew doole kan la mu ne ko yaa Aba Dar inni araka daifan yow da ngaa néew doole wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi te li ma la bëggal laa bëggal sama bopp mu ne laa ta'maranna ala isnayn njiit moom bu ko nangoo nekk ba kera ngay faat même bu dee ñaari nit ñoo daje ni la kaay jiite ñu mu ni bañal yaakaar naa kenn ci yéen doo mës a dégg ñu ne Abu Zar fal fal nañ ko dëkk sàngam moom moom xawma lan waaye doolu doo ko dégg moom jafe jëf jafe ndénkaarab la jafe moo tax it mosul nangu ñu ne saxaaba yi bari dañ leen doon fal am na sax ñu doon bañ léeg-léeg ñii ñu doon forcé gis ngeen Abu Hanifa noonu la meloon Abu Hanifa boo ko musaana wax kaay ñu falal day bañ benn bis buur dani ko kaay ma fal la mu bañ buur door ko ba teppi jëbi buy kaalaw léegi day kaalaw ba muuraale gaañu gaañu bi biñ ko laajee waaw sa muuraay gii ngay nëbbaale lan la mu ne dañ maa gaañ te sama yaay lu ma naqari rek lay bañ a gis sama yaay buy gis gaañu gaañu bi di jooy te bëggumaa génnee rangooñam moo tax may kaalaw ba muuraale gaañu gaañu bi kooku waxuma la fonkoon na yaayam waaye yaayam tamit fonkoon na ko yaakaar naa ne xëyul xëy fonk na ko am na lu mu def yonent bi ni ko bul jiite donte ñaari nit la bañal beneen bi ci des mooy mu ni ko wala tawaliyanna maala yatim alali jirim moom bu ñu la ko dénkee ni la garde ko pour bu màggee nga delloo ko ko mu ni bañal moo tax borom téere bi mu ni al imaamu zahabi te imaamu zahabi jazahullahu kulla xayr gis nga yu mel nii boo demee ci siyaar leen da ci def taaliq yu am solo pour nga am ak dégg-dégg ndax jàpp naa ni lii bu ñu ko bàyyee nii rek mën ngaa jaaxle kii kan daayif la am defe naa loolu am na imaamu zahabi mu ni fa hada mahmulun ala daafi ra'yi fa innahu law waliya maala yatimin la anfaqahu kulluhu fi sabilillah gis nga Abu Dar boo taseeg moom nga ne man de biig biig maa ngi denc vingt mille francs da lay mere ci loolu xam ngeen lu tax mu lay mere nee na jullit warta fanaanoo dara ci biir poosam lépp dépensé ko boo xëyee xëy ma xëyum yàlla subhanallah loolu loolu loolu jafe na ñuy dundee noonu de vingt mille francs mu ni déedéet lépp dépensé ko lekk ko mbaa nga joxe ñu lekk ko mbaa nga dugal ko fi sabilillah suba suba yàlla amana doo ko fekkee mu imaamu zahabi mu ni nii mu mel nag jàpp naa ni ku ni mel waree su laa dénk alali jirim ndax bu ñu la ko joxee nga def ko fi sabilillah te su boobaa da ngay tooj mu ni ko kon su boobaa bu ko garde nee na tamit su boobaa wala tarakal yatima faqiran jirim ba dana ko bàyyi mu ñàkk ndax danaa ko xaaral alal yàlla jib lay jox beneen bi ci des mooy mu ni ko bul nangoo jiite ndax Abu Dar dafa tàng nag fii xida dafa tàng jër maanaam tamit nag boo jiitee dëgg la nag njiit war te nooy bopp de gis nga njiit loo xam ni da ngaa naqari deret di tooñ mayoo nit ñi fu ñàkkee seen nàkka boobu baaxul njiit boo xam ni da nga xabaaral yàbbaaral lu ñëw rek jàll bal bu ñëw dugg yooyu it matoo njiit faw tawasub am ca li ñaan lu nekk rek saw nga coppati sa suuf jàpp naa ni njiit yi ngi jot a jaar ci àddina bi ba ci réew yi ñu nekk ñun gis ngeen fi njiit loo xam ni moom ba mu fi nekkee moom jàpp naa ni yëngu yu bari amul de am fulla lool am caractère nit ñi kenn du la yëpp yi ñuy wax ci rajo bi yëpp kenn du ko wax yi ñuy wax ci télé yi kenn ay wax sa xalaat ak di wax di ŋàññ yooyu du am de xam nga lu ko waraloon fulla njiit dafay am fulla am na yoo xam ne kenn du ko ko waxal te it nag ñaareel bi njiit daa bokk ci ay qualité am mooy dafa am ñoo xam ne ndeysaan bëgguñ ko mer kooku matul njiit koo xam ne yow da ngay sédd nit ñi am na ñoo xam bëggoo diw mer déedéet da ngay dundee kuy mer na mer kuy kontaan na kontaan na nga nekk ci dëgg rek yow booboo baax beneen bi ci des mooy am na njiit yoo xam dañoo tuuti bopp dañoo tuuti bopp maanaam lu ni karset rek ni karas rek bëgg a tukkal àddina bi déedéet gis nga léeg-léeg da ngay gis loo xam ni lii mën naa tukkal àddina bi donte yow xam nga ne lu garaaw la waaye da ngay peneti peneti lu parce que njiit warta gaaw a jaaxle warta jaa gaaw a afale ak yeneen critère waaye boo seetloo njiit loo xam ni sa waay ah benn waay fii lay taxaw wax ko lu mel ni xeme ci rajo yeeg ci public ma gi nangam ak gi nangam faf sax moom sax muy ñëw nag di waxal boobu lu koy wàccee loolu jàpp naa ne yooyu njiit du mel noonu moo tax nag gis nga njiit yi boo seetloo njiiti lislaam yi yépp boo seetloo Osman ak li muy baax baax baax baax bu a bu dul Ali ak ni mu sonne ci xawaari ji Osman dafa sonn loolu li ko waral mooy dafa nekkoon ku sedd ah mooy te ku nit ñi di nangam di maslaa moo tax bi mu defee six ans gis ni loolu doxut dafa soppi dafa xëy benn bi seen def xutba ni gis ngeen yéen yéen a may fontoo xam ngeen ba fi Omar ibn al-Khattab nekkee nangam ak nangam daaw leen ko def ah da ngeen gis damaa sedd moo tax di ngeen xam ci la six ans yi mujj yëpp da koo soppi Ali moom moom kadalika moom it nag neexul woon a ñem moom yàlla da ko mayoon xëy ba boo xamante ni jëmmi xool ko rek daa neexul daa neexul a ñeme waaw du woon ndaama ba yegg ci suuf lool waaye ku digg doomu la woon nag ah nekk koo xam ni sikkim bi dafa sëpp xool ba boo ko wanee gannaaw fii tolloog mbagg mi yaa ngi seen sikkim bi te ca gannaaw nga nekk yow neexul woon a xool yàlla da ko mayoon xëy ba ka Umar ibn al-Khattab wa amsalihima léegi kon Abu Dar moom du négocier dara lu mu lay wax fii lay taxaw ci digg bi wax la ko te it nag lu ñuy làq-làqal ak di ko nëbb nëbbal comme li gars yi def léegi am na yoo xam ne yu Omar ibn Khattab yooyu nee naa yooyu bu xewoon sa waay léegi tey jëw jeex da ngay ñëw ci moom nga wax ko ah diw lii diw laa diw laa mu bàyyi ba ëllëg mu woo la nga ñëw mu ne la démb ci ngoon yaa fi ñëwoon ci heure bi mu ne waaw mu ne la diw ma nga doon waxal mi ngi nii waxal na dégg waxal na dégg am na sunu mbokk mu ñu xamoon ndeysaan nu mel nii la daan dundee yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko mu ngi may nettali benn bis mu ni ma dafa faatu moom amut sax ay jàdd jàddal lu mu la xalaat dañoo sàccum xaram ci biir kër gi mu ni mu yeew am kum romb ci mbedd mu ni ko ponkal mu toog mu ni ko yow mi wóolu ma la daana yaa sàcc sama xar bi te mi ngi toog ci buntu këram yëg yëgam la wax maanaam loolu li muy wane mooy moom la mu yëg rek la lay wax amu ci ay rus ak ay jàdd jàddal ak tey ñoo enquête ak tey nangam li mu yëg la lay wax kunu foog ci moom naxsibuhu wallahu xasibu laa nu dakki ala allahi ahad rawatina faatu na ah ku ko xam te jege ko moo nettali nee na benn bis da doon seetaan télé waa ji di wax tagg sëriñ ba mu yàgg mu ni yow sax yàlla nga rek mu xëm ci saal bi ki ko nettali sama kanam la ko nettalee nee na sama saal la amee loolu loolu loolu lu neex a lu neex a nettali la ci ku faatu Abu Dar kon doon la meloon tàngoor wi dafa yeggoon foo xam ni bi maanaam moom kat yenn maslaha yi tayit nag buur loo yare yare yare léeg-léeg da ngaa war a wàcc maslaha kap te loolu amul ci Abu Zarr moo tax mu ne ko innaka la daif man yu addil alhamdulilah kon Abu Dar loolu mooy ndénkaane bi ko yonent bi dénkoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon moom li ñuy def di def li ñuy tuddee mudaaraat mooy mbir am ngay négocier di di di neexal ak yu demee noonu moom daawu ko ci fekk loolu bari bal nag yii bàyyi leen ko xel bu baax ndax incha allah ci biir ñëw bu ñuy eggale dundam sabab la woon ci ñu bari jàppoon ni moom dafa xeeboon saxaaba yeeg da déedéet maam lii tabia la bu ko suñu borom bindee te it xam ngeen am na nit ñu mel noonu nag léeg-léeg nañ bàyyi xel ni gis nga léeg-léeg di nga sikkal nit ci melokaan wu nuru wu tar te fekk wallahi ngëmam moo toll foofu yaa ngi koy tooñ léeg-léeg di nga sikkal nit ci nu mu ubbee koo di yaatal nit ñi nga jàpp ni dafa jubadee dafa nangam fekk déedéet yàlla moo ko bind mu neex deret noonu nit ñi nag noonu la ñu wutee na ko xam dafa noppi cee laaral am koo xam ne dafa dafa dafa bari wax am koo xamante ni dafa dafa laabiir am koo xam dafa tëju kii dafa ubbeeku léeg-léeg mën ngaa gis waajoo xam ni ni mu ubbeekoo ak ni mu mën a kafee noonu la baaxee fa sun borom ah waaw waaw am na de gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ñu mel noonu ca kanamam te wallahi yonent bi yeddu leen ca loola ndax am na yoo xamante ni dëgg la bu mu dugal nit ki nag ci mu def lu islam di tere waaye nag am na ñoo xam ne yàlla moo leen bindee noonu defe naa yéen a ngi fàttaliku qissat am na waajoo xamante ni ci màkk dafa reelu woon torop torop du caagee nag xadis bii ñëw di tere loolu la muy tere mooy nit ki jug nekk ab comédien di jug reeloo nit ñi déedéet dafa am koo xam ni même bu jugut pour reeloo nit ñi moom noonu la ko yàlla bindee geste yi muy def nit ñi dañ ci parce que noonu la suma suñu borom bindee loolu bokkut ak kële nga xam ne mooy kere ay affaire am comme ni ngeen ko xamee fii jamono bëgg a nekk comédien déedéet gis nga bi ñu dikkee Madina ñuy séddale diw yaa diway sa xarit diw diway sa xarit affaire bi nekk ab ab ab genre séddoo nu mu tuddati séddale bantale far moom mu yem ca Madina koo xam ni ni moom la mel nag maanaam waajoo xam ni moom ni nga ni mu reeloo kii noonu la mel moo tax yent bi ne al arwaaxu junudun mujannada ruu yi daal nekkate ci asamaan sa daal soldaar la ñuy wasaara woon ci asamaan si rek ña fa xamante ne bu ñu yegsee fii dañuy xamante ñu xamante loon duñu xamante mu ni moo tax kii daj na kee kon yooyu di ko bàyyi xel lu am solo ndax léeg-léeg nit ki dana fasal nit ki wala mu seedale ko wala mu àtte ko ci loo xam ne ci njuumte la tege ñàkk xam-xam moo tax nga def Abu Dar radiyallahu anhu yonent bi da koo bëggoon lool léeg-léeg yonent bi daana jóg di dem ni ko kaay gunge ma jàpp naan loolu lu rëy la yonent bi ne la kaay gunge ma comme ni ko Muaaz amee woon ak yooyu mu ne yonent bi war ca mbaam ma ma war ca moom mu toogu ma ci ginnaaw lii kon day wane ne yonent bi bëggoon na ko sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bëggoon na ko waaw saxaaba ya nag orma ji ko yonent bi joxoon moom la ko saxaaba yi joxoon benn bis dañoo laaj Ali ibn Abi Talib ni ko waaw yow loo xam ci Abu Dar mu ne Abu Dar de bopp bi lim yenu ci xam-xam moom sax attanu ko allahu akbar wa hakada kaanu min qablu tey nag buñ ne la loo xam ci di nga ne ah diw de moom xanaa ñu bàyyi noonu rek ah yow kay si kenn du ko xam nga daam yoo xam ah jël jëloo xanaa ñu bàyyi noonu rek ñu bàyyi noonu koo ko wax dana automatiquement mu ni am na lu xew kon kenn du wax lu rafet ci sa mbokkum julit subhanallah mbokk yi loolu ñaaw na de tey jii amul kenn kenn mucc ci nag boo demee ci siyar imaamu dahabi muy nettali ba ci borom xam-xam yi laa wax bu nettalee yi doon dox ci digganteeg borom xam-xam yi ba noppi léeg-léeg danaan nag lii lépp nag bu mu tax nga jàppal leen ko yëgal ni seytaane moo mën a foyee nii moo tax mu dem ba fo ci ñoom waaye nag la lay wan ni ñoom bokkuñu ak ñun mooy kum ca manti doon rek masalay fiq lay doon ak masalay aqida ki nangam waaye du luñ la fasal ci sa biir xol defe naa nettali woon naa fi ay yu mel noonu diggante imam malik ak ibn abi zibin ak ya ca xewoon ba ngay gis ibn abi zibin imam malik dañ ko war a woo fii tër ko rendi ko xoolal xoolal jooju wax ni mu rëy mbir yi àggoon na foofu ah imaamu Shawkaani ak ñam dajeeloon Muhammad ibn Yahya Zuhali ak Muhammad ibn Ismail al Bukhari ibn Hajar al Asqalani ak Badruddin al Ayni affaire daal doo xam lu muy nuru loolu lay wan ne seytaane fo googu muy fo am na ñu ñuy askan diine sax te muccuñ ci waaye ñoom nag ku daan seedal sa mbokk da ngay seedal la nga xam ci yiw la nga xam ci safaan nga noppi ca loo xam ci Abu Dar mu ni kooku de lim yenu ci xam-xam bopp bi sax àttanu ko. mu ni musuma gis ku nay ba mel ni abu abu dar ñu ne ko nay ak lan mu ni xanaa nay ci diineem waaw googu nay de baax na musuma gis ku nay ba mel ni abu dar gan nay mu ni kaana saxiixan ala diine ku nay la ci wàllu diineem ñun nag ci lan la ñuy nay alal ci alal la ñuy nay duñ nay ci diine nee na abu dar de lim yenu ci xam-xam wax dëgg yàlla rëy na ci moom lool benn bis biñ ko laajee ni ko waaw loo xam ci abu dar mu ne man de xam naa ni koo xam ni ñeme na dëgg te du ci tiit dara amu ci ku mel ni Abu Dar ñu ne ko ba ci yow mu ni ba ci man moo ma raw fuuf te xam nga ni Abu Dar Ali yoo ko gën laa shakk ndax xulafa rasul ñi sa bokk bokk ñu ñeneen waaye biñ ne ko yàgg moom mu ni moom sax moo ma gën ci buntu boobu moo ma gën nag nit ma nga ko gën fii mu gën la fee nga ëppale ko lii mu ëppalee bu ngën gi dajee mu daal lay gën ndax yonent bi moo ko jox jeex na bi yonent bi faatoo nag sallallahu alayhi wa sallam ah Abu Dar nag ñàkk na ab soppeem ndax melokaan wi mu mel kéemaanu yàlla woon est-ce que xam ngeen ni Abu Dar pour wane na ni mu doon toppandoo yonent bi dem nañ ba façon pepp biñ doon génne azaka amul ci Madina gaa yi génne beneen façon pepp mu ni boobu lay wëri génn ci maanaam su ma ko doon misaal dugub ji basi bu ñuul beeg basi bu weex bi ñu ngi doon génne ci jamono yonent bi basi bu ñuul bi ñu dem ba mu yàgg lii misaal laay joxe rek basi bu ñuul bi jeex bu weex bi des. waa dëkk bi ni borom xam-xam yëpp dëppoo ci remplacer mën na ko remplacer mu ni mukk moom du ko remplacer moom daal bu weex bi fu mu mën a nekk fii ak mi ngi am ci kaw suuf dinaa ko wëri moom lay génne muuram koor pour wan la ni mu doon toppee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu nag ab dégg-déggam la woon bi yonent bi faatoo nag sallallahu alayhi wa sallam nee na Madina daal lëndëm këruus ci man comme ni mu leeree woon naññ bi yonent bi du duggusee li tax ñu tuddee ko madina munawwara hakada ndax madina yasrib la tuddoon ba keroog ba yent bi duggee ca la tudd madinatul munawwara te bi yent bi faatoo ndeysaan mu ni fii mënatu fee toog day génn dëkk bi loolu moo waral Abu Dar génn dëkk bi kon ñii wax ni asmaan moo ko génne te loolu dina ñëw ci darsi bii di ñëw loolu wérut amut yal na yàlla fay yiw imam Abubakar ibn al Arabi ca téeréem boobu di al awasim min al qawasim fi maarifati mawaqifi sahaba ada rasulillah tontu na fa tontu yi ñu tuumaalu asmaan yi yëpp bokk na ci mooy dafa dafa dàq Abu Dar mu génn Madina xam nga loolu boo ko déggee sa xol commencé sot fekk déedéet da cee waxtaan ak moom bañ déggoo ci mu doog a dem te loolu dina leer ci darsi bii di ñëw incha allah waaye même bu dul loolu sax xam ngeen ni Madina bi yent bi faatoo saxaaba yu bari dañoo génn ngir yan asbaab am na ñoo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu nekkoon buñ fa continué woon di nekk rek du duñ mën a supporté di xëy duñ gis yonent bi sallam loolu day am de loolu day am foog naa yéen a ngi fàttaliku qissatu Bilaal radiyallahu anhu ba mu tàggu Abubakar ba dem yàgg ca àll ba lool ah keroog ba mu ñëwee ba noddu ah. keroog jooja daanaka bu doon bëccëg la ñu ni kenn añu ndax jooy yum jooyam yu metti yi bi mu ne bi mu noddee allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa bi mu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah mënatu koo dégg ndax xel mi dafa dem ci yonent bi fi nekkoon ma toog ci peggam di ko noddal keroog Omar dañuy wax ni ci ñi gën a jooy ba sërxët la bokk loolu lim la woon mooy kon génnoon na Abdullah ibn Mas'ud demoon na Kuufa Abdullah ibn Abbas ma nga woon Makka dañoo génnoon tasaaroo foofu nañ ci yégée ni kon daawa yi kat daawa bi faw duwaat yi génn nag loolu laa sama mbokk yi ñun ñëpp ñu dankale ko fii Dakar rek di naan ci sedd yi daaw bi faw mu dem ci àll bi gis nga li wasaare diine ba nit ñi jot ci mooy duwaat yee génnoon di ko wasaare ci àll bi bi yonent bi faatoo na sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci dëkk bi ab diir diir bu gàtt ndax diir mooy xilaafatu Abubakar kese bi mbir mi paasee nag ndeysaan xilaafat Abubakar bi mu jàllee nag mu commencé seet fan lay tux di wër nag fan lay def pour génn noonu benn bis mu daal di ñëw Dimashq fekk waa Dimashq ña ngay fo defe naa foofu la Abu Darda demoon de hakada kon ñoo ko nurale ba ba tey nee na bi mu yegsee fekk leen ña ngay foo ka caaxaan bokk na ci discours yu rëy yam fa defoon di leen fàttali di leen delloo si waat bi mu demee nag ba dëkk bi nag commencé nag gis nga Abu Dar bu mu saan di jaar jaar fii laax di ñëw xam nga bu doon suñu jamono ñu ne dañ koy seetaan sax loolu moom la la la la la garwa loolu dara néew ci parce que c'est normal waaye Madina ak ni mu meloon ak ay saxaaba jamono jooju nañu selle ak nañ meloon ñoom laa wax dañ daan yërndu di xool abu abu zar buy romb ndax xam nga yenn xeeti mbir mbir yoo xam ni boo ko melee loolu yéen ci tudde alxuraba da ngay dem ba li ngay dund daanaka moom rek moo fi xaw a niroog la yent bi nekkoon donte saxaaba yaa ngi doon dund waaye nag da leen a rawoon ci buntu jëfe wala raw na si ñu bari bokk bu daan jàll da ngay gis gars yi commencé di xool bis bi ko Osman woolu woote dina ñëw ci dars bii di ñëw kadalika noonu la meloon ba ma waroon wax sax naan waaye nit ñi xanaa dañoo defar man ci xawaari ji laa bokk ba ñu ma yërndu nii nag booba xawaari ji ñi ngi takkar naa si ci dëkk bi Abu Dar daal di toog ba mu yàgg benn bis dafa joteeg Muawiya joteeg lu ko waral Muawiya da doon waaraate mu jàng walladina yaknizuna alzahaba walfidda wala yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi adabin alim ñi nga xam ne dañuy denc or ak xaalis duñ ko génnal azaka bu ñu faatoo suñu borom dana leen lakk ca safara Muawiya daal ni loolu yàlla mi ngi ko wàcce ci yahudi ak nasara bi Abu Dar ni ko waxoo dëgg léegi nag waxoo dëgg foofu nag bu leen jàpp ni ñàkk teggin la déedéet ngir ay mbir yu bari maanaam waxoo dëgg ay moromante sañ nañ koo waxante ñoom muy benn ñaareel mooy dëgguk Abu Dar gi foofa la toll ñetteel bi moom mooy lu mu bëgg a wax ca saasa la koy wax te it Muawiya nag gënul woon Abu Dar nag ak li muy tedd tedd kon asbaab yu bari tax na mu wax ko loolu bi mu ne ko waxoo dëgg nag Muawiya mer ca loolu te Muawiya moo nekkoon gouverneur de mu yabal benn waay ci Osman ni ko waaji fi ne discours bu ñu def mu yàq ko moom wax a wax a wax ay wax loolu nag sabab bii nag moo tax Osman woolu ko ñenn ci mu arrixuun yi historiens yi boo jàngee seeni téere dañuy wax ne Osman da koo dàq fekk du loolu de Osman da koo woolu pour waxtaan ak moom ni ko comme yow dëkk bi mënoo dund ak ñoom mën ngaa ñëw nga dund ak man kaay ñu dëkk mu daal di koy reetaan ni ko mu man seen àddina ji dama ci soxlaa dara allahu akbar bokk yi xool asmaan ak fi mu toll ni mu ragalee yàlla mu naa ko seen àddina ji mel ni moom bokk ci kaay ñu dëkk maa yow ci madina mu ne ko seen àddina ji man soxlawuma ci dara bëgguma ko dama bëgg nga ber ma ma am fu ma dem mu ne ko foo tànn mu ne ko rabza laa tànn ci la ko daal di yebal mu dem rabza foofa la faatoo comme ni ma ko doon waxee sànq mbir mi dañ cee waxtaan ba juboo ca ba muy dem sax Osman nee na ko kaay ma jox la ay gileema ki nangam mu ne ko xanaa déggoo li ma la wax nee naa la seen àddina ji soxlawuma ci dara xam nga lu ma soxla nañ ma bàyyi ma am espace bu ma sanc muy rab sa dëkk fa Osman daal di koy bàyyi mu dem am na ñu wax ne sax Osman jot na ko jox ay jaam ak ay nangam mu dem foofa la nekk dund fa ba na ko faatu fekkee mu nekk ku wéet lool nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla yërëm ko jéggal ko defal ko mboolem saxaaba yi yàlla na suñu borom defal ñu tawfiq boole ñu ci ñi nga xam ni yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ñu boole ñu suñu borom boole ñu ñi nga xamante ne la yaj'al fi qulubihim ghillan lil ladina amanu lu am solo la mi ngi dugg ci buntu ma doon wax sànq seerirante lu baax yàlla yàlla boo def benn een ci suñu xol ñuy een ku gëm yàlla mbokk yi ab julit kenn du ko een man ngaa bañ lam lam def waaye julit kenn du ko en loolu alquran wax de laa tajaal yàlla boo def fii qulubina suñu xol yi xillan ñuy en lilladina amanu ñen ñu gëm yàlla mbokk mi ki nga en ban martaba la am ci yàlla da nga koo xam ki nga en bokku ci ña yàlla wax ni moom bëgg na ko ak i malaakaay mu ki jibril ah yàlla ni man bëgg naa kii nga ni en naa ko mbokk yi loolu dangereux na de kon nag ab julit kenn du ko en kenn du ko bañ san ngaa en lam def wala nga bañ lam def defe naa gisoon ngeen Abu Darda lam doon wax ca mbokkam saay saay bi kii nangam na gaa yi naan saay saay bi lim def xanaa yow doo ba doo ko bañ mu ni déedéet bañu ma ko de lim def laa bañ bu koy bàyyi ma di ko bëgga loolu moom mooy njub ga yàlla sunu borom defal na ko wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain